bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi taala bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ñëw rekk ci diir bu gàtt am luñ tënk ci bis bi leeral ko naam waxtu wi xaj na ndax ñi ngi war a préparer ngir defar xéewal yi ndax suba day bisu liggéey waaye bala maa sori damay jox alaaji gay ci commission culturelle mu wax kaamil yi fi jàng ak ni ñu ko jànge su noppee ma doog a jox sëriñ daam bu noppee nag léegi sëriñ bi ñaan ñu indi xéewal yi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yéen mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalib yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala hmm, def siyaar bi fekk leen ci jàmm bàyyi jàmm fi siyaar bi jóge di wax na dañ fay teewoon rek ngir ay baat yu néew ndax dafa am liggéey boo xamante ne bi dañ koo tegoon ci loxob sëriñ Cheikh Awa Balla Gaye ak sëriñ Xaadim Dia ak sëriñ Xaadim Sall ma nekkoon ci seen bés di di ci ànd ak ñoom yàlla def liggéey boobu yemb dara warulu ko woon lu may bis bi mu li jëm ci njàngam alxuraan léegi nag sunu borom dafa defoon bi màggal ga jub see sëriñ Fallou Mbacke bu moom sëñ Thierno Mbacke gelongal fële ca Ponte di Piave wer wetu Sandona dañ fa amoon benn daare kamil boo xamante ne bi daaw ba ren dañuy yëngu ci alquran nga xam ne bis yu bari dañuy daje di jàng alquran bi tam xarit gi teeroon nag ba léegi eh, ñu nekkoon ci njàng moomu ngir jagleel ko bisub 18 safar bi yàlla def barke démb ki nga xamante ne bi moo ko jiite moo ko jiite di Serigne Abbas Lo ci sëriñ Serigne Fallou Mbacke mu woo ma ne ma am naa ñen ñaari téeméeri kamil ak lu teg ne ma yéen waa télévision lu ngeen amagul ma ne ko ñi ngi dajale waaye bés ba lay gën a leer bisun borom dogalee bés bi ñëw Euh, li li fi teew tey ci bis bi ak li fi jàng yëpp bi ko dajale mi ngi nekk juróom-ñeent fukki kaamil ak juróom-ñeent yàlla dogal sëñ Fallou Mbow sëñ Fallou Mbacke moom ak ñi àndal àndal indi fi 391 kaamil yu nu jàng ñoom ci ñaari weer yooyu lépp bi ma ko xoolee mi ngi nekkoon 391 kaamil ak 99 yi nga xamante ni moom lañ waa télévision jàng mu nekk 491 kaamil bi ci toppaatit am beneen mbokk taalibe moo xamante ne bi dafa indiwaat fukki kaamil ak juróom-ñett ak beneen taalibe boo xam dafa indiwaat ñetti kaamil lépp boo ko boolee mi ngi nekk juróomi téeméeri kaamil ak fukk ak benn loolu mooy liggéey bi nga xamante ne bi jullit ñëpp dañ ca jàppan ngir jëmi Serigne Touba ñu ngi ñaan sunu borom jotale ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jotale ko mboolem jullit yëpp rawatina Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo waral bis ndax mbokk boo ne ko jàng nañ juróomi téeméeri kaamil ak fukk ak benn te leeraloo ko ko dana wax na nuñ ko mën a defee waaye sëñ Fallou Mbacke ba mu sëñ Dior Mbacke gerongal li ëpp ci njàng mi foofu la jógee télévision moom li fi jógee 99 kaamel moom lañ fi dajale liñ jàng ci kër yi yëpp ak liñ jàng ci bis bi bi ñu ko boolee 99 la li jël si lépp foofu la jógee ci Ponte de Piave kon yàlla na leen yàlla fa seenub liggéey jullit ñi nekk fi te doon jéemit yàlla na leen yàlla fa seenub liggéey te ku fi teew yàlla na fa say aajo say jéego dikk ak say jéego eh, wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Euh, kon loolu leer na nañ kon gannaaw buñ leen nuyoo saare leen di leen wax ne noo ngi dugg ci bis boo xam ne mooy bis bi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa génne woon liggéeyi liggéeyum réew wax ne xarajtu yow ma sabti zamina asar li xidmatil muxtaari fii saari safar kon bis boobu mooy bis bi nga xam ne ci la fi Sëriñ jóge woon liggéeyi bu réy bi dem ba dellu si njaareem woote fa na nañ ko sant la yàlla ne bu bis bu dellusee li dale ci ganaar ba ci giléem lu waaye am na ku ko ci defal te bu mu ko xeeb bu mu ko yéem wax ne bis boobu bu dellusee sun borom lu mu ma tegoon ci natt tegoon na ma lu ko toll ba may liggéey waaye bi may fay itam lu mu ma woon nu mu toll su bis bi tëllee du ko fulaat ba mu tollaat noonu mu joxaat ma ko wax ne ëllëg yowmal xiyaam mun demee àjjana àjjana amul jant ak weer amul bëccëg ak guddi amul bis waaye bu bis bu dellusee kenn ku ne fa nga nekk ci àjjana da nga fa yëg xéewal gu yokk ak bànneex ba nga xam ne tey jii mooy bisub Serigne Touba ba nga xam ne moom lañ daan santale boroomam ca Sénégal kon ñu bañ a guddal ndax taa bi li ci des dafa bariwul kon ma jox sama doom Serigne Dame Gueye mi nga xam ne mooy def li nga xam ne mooy waxtaan wi waaye li mu tënk daa bari te waxtu wi li ci des dafa bariwul kon ci gàttal na ngeen ko déggee ni mu koy tënkee ndax day risime rek loo xam ne nit déggu ko ci. wala mu jàpp ne ak guta na xam ne du lum munta wax waaye taa bi moo xoj ba nga xam ne da koo gàttal def ko tënk def li arab di wax xayrul kalaam maa wa dalla noonu la koy doxale kon sëriñ daam ñu jox la kàddu gi bisimilah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wajaal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida laqi lisaani waxlulan min uluqat wajcalhu shakiran wa dhakiran abad wa kun muidan lana min sharri di asalin ma sharri famin wa sharri lcayni allahu wa sharri sixrin wa sharri lxalqi insihimu ma zinnihim wa dawaati summi allahu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa taala delluwaat julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel ñeen ñëpp ci bis bu màgg bi ñu nekk muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ginnaaw loolu ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax jotaay bi ni mu tàmbalee ci suba ba fi mu toll nii nga xam ne wax dëgg yàlla jaar na fi ñu ko doon yaakaaree ginnaaw bi dañoo defoon benn euh, tem boo xam ne mu ngi mi ngi tuddoon inna fi dikra safarihi wa xadarihi la ibratan li ulil absar noonu la tuddoon ñu tënk ci jaar-jaari sëriñ bi ci lu bare baree bari ba tudd ci euh, yoonu géej gi tuddi ci ba ñu mu ñibbisee ba ni mu delloo Tuubaa yëpp tënkoon nañ ko ci waaye dafa mel ne ginnaaw bi ngànt dafa dog ñu ne léegi nañ wax fukki minute ak juróom rek te lii may wax nii su ma ko waxaatee ñaari yoon mat na fukki minute ak juróom kon nu mu mel rek ñu xam ne noonu la deme incha allah kon sëriñ bi yaakaar naa euh, ñépp xam nañu ko ci turam mooy Muhammadu bnu Habibillah ndax Mamour Anta Sali Habibullah la tudd mi ngi ganee jamono Mbàkke Bawal foofu raay bi jaar foofu foofu la ganee jamono nga xam ne euh, bi mu ganee jamono ñi ngi ko jaarale mbooleem fi ñu jaarale doomi soxna mooy nekk ci kër gi bu motee dugg ci daara ji wàcc ci daara ji su matee dal jàng dal jàng waaye su matee dal jàngum xam-xam dal jàngum xam-xam nga xam ne foofu yi ko jaarale ba mu tàmbali ñàngum alxuraanam ñu jox nijaayam nijaayam jooju jox ko beneen nijaayam koo xam ne maam lay doon ci moom ku ñu wax tafsir Mbàkke Ndumbe la tuddoon waaw bi tafsir Mbàkke Ndumbe wàccab liggéey mu dellu ci mu dellu si ci waajuram bu góor nga xam ne wax nañu ne alxuraan moo ko mokkalal boppam ndax bi muy jógee foofu mi ngi tolloon la taj tajidanna waaye aaya boobu nag dafa dëppoog ay mbiram ndax la tajidanna ashadda nnaasi adaawatan lilladina amanu al yahud walladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu lilladina qaalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbiruun foofu la tolloon lool nag dafa dëppoo mbiram ndax aaya woowu suñu borom mi ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mboolem ñi gën a noonooñ yàlla ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ne ay yahood lañu muy li ñuy wax ay ju ay juif bu ñu jàllee ñi nga xam ne dañuy bokkaale yàlla mooy ñi nga xam ne moo la ñuy wax miscréants ñoo xam ne gëmuñu dara daanaka waaye ñi ñi nuru ñu la xaw a bëgg nag mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne inna nasara ñooñu ñooy waa nga xam ne ñu ànd ak yonent Yàlla Isa bu loolu jàllee euh, mu nekk ci loolu moom di góorgóorlu di def dañuy wax ak tajallut ak di mokkal ba wattu téere bi yàlla bi bind ko maas ko ñu topp ko wax nañu ne magam ku ñu wax Mamor Jaara toppal na ko ba mu egg ba mu defar ko shahada wax ko ne ko mokkal nga alquran mu tàmbali njàngum xam-xamam waaye ci biir loolu dafa am lu ci yéeme lu ci nekk mooy njàng ma daa gaaw ba mujj gi maanaam moom muy jàngale ci biir fi muy jàngalee waaye la muy jàngale ci biir fi muy jàngalee loolu jàngagu ko maanaam jàngagu ko dañ ko koy euh, dañ ko koy sax ngir mu koy jox ñi nga xam ne ñoo fa war ñëw di ko jàng si ba mujj gi ñu bàyyee ko daara ji ba mujj gi lépp li may wax ni ci benn ci benn moment ba mu gi muy taalif moom ci boppam way juróom di ko jàngale ci biir daara ji ndax umul euh, barahin bi mu ko taalif nga xam ne téere la woon boo xam ne ci euh, tasawuf lay wax bi mu ko taalif nga xam ne imaam Sanusi moo ko defoon bi mu ko taalif si biir daaree sëñ Maamoor wax taalife sëñ Maamoor wax nañu ne jàngal na ko ku ñuy wax sëñ Balla Coro wala sëñ Cheikh Coro ak sëñ Afia te moom moo wax lépp mi ngi ci biir daara ji bi sëñ Maamoor jógee tamit mu nekk ci loolu nga xam ne léegi dañu ne ma naa tënk xaaloo lier kan ak xaaloo safihun rek la ñu ne naa ko tënk mu jeex waaye li ñu tënkoon tënkoon nañu ba bi mu ñibbisee njaareem ba ni ñu ko dugalee Touba waaye comme jot gi mayu ko incha allahu kon ñu xool li mu baaxee rek ndax bi ñu euh, sëñ Mamor génne àddina yàlla yàlla dolli ko yërmande te dolli koo gërëm euh, mag ñëpp dañoo dajaloo woon ngir bëgg maanaa dendale ko ak lajoor ngir mu koy dimbale di ko defal li ñuy wax ay al ifta mooy di ko ubbee suñu xaree ba ñëw bu ñu jàppee dara lu ñuy wax al xulm bu ko defee Euh, mu wax la la ca yàlla daganal bu dee lu ñu war a lekk la wala bu dee loo xam ne waree su ko jëfandikoo bi ñu waxee ba jaale ko lépp rafet li may wax boo demee ci irwaaw nadim bu euh, Cheikh Mouhamadou Diop ak dagan yi di nga ko ci fekk mu ne leen lépp rafet na jaale gi baax na wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na waaye am maa dem dëkk ak la joor moom du ko mën ndax euh, dañuy wax ne maanaa am njàng wala am njàngale mënut a dëkk ak buur te moom dafa gis ne borom bu dem ci buur mel ne Euh, weñ woo xam ne dafa dem ci ay dem kër moom noonu la ko gisee moo tax mu gàntal loolu dal di ñëw nekk ci loolu continuer ci loolu di jàng ak di jàngale nekkoon fi nga xam ne fi la waajuram nekkoon te euh, mboolem ku ñu tagg ci diine li ko commencé ci maam Adama ba léegi ku ñu tàgg dañuy tagg ci mbaax tagg la ci diine tagg la ci askan bu rafet kon moom loolu rek ci la nekkoon mooy di jàng ak jàngale teewul ci biir loolu mi ngi taalif ay téere yoo xam ne dañoo jëm charia euh, nga xam ne téere mooy yi jàng léegi nii ba benn bis rek mu gis ne ndekete njàngum kese du dara maanaam théorie rek di denc du dara waaye li gën mooy ngay théorie di pratiquer moom loolu loolu la gisoon moo tax mu xëy benn bis rek daal di génn ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax lii may bëgg a wax yont bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabba kulla waxidin bi maa yaliq ne ko euh, na nga yar sa mbooleem ñi fi ànd ak yow ndax bi bi si Mamar jógee dafa ne képp koo xam ne njàngum kese moo la indi mën ngaa seeti feneen koo xam ne dangaa gis ne mën ngaa ànd ak man ci lii ma dëgmal bisimilah yoon waa ngi noonu ña nga xam ne njàngum kese moo indi woon dañoo daal di jël seen i yëf daal di laxas daal di gàddaay dem seen yoon ak képp koo xam ne mënoon nañu ko yóbbaale ñu yóbbaale ko seloo loola am ñu fa des ñoo xam ne wax nañu ne lim bu néew la ñooñu ñooy ñi xam ne ñoo ànd euh, Euh, sëriñ bi ci début bi maanaam ci bi mu soog tàmbali ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ci bi mu tàmbali ci nekkoon li nga woote daal loolu ci lañ ànd ak yow moo tax mu wax ne wa min ajaayib ibni abdillahi sala alayhi bi baaxin adaa ardahu bil awliya ila alqiyamati wa kulli waliya mu ne dafa bokk ci kémtaani doomi abdullahi mi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla yàlla dolli ko leer ne sunu boroom dafay leeral suuf si ci ay waliyu ba bis pen ci taw daan ne sunnatahu wa saanaha an bidaai tabshiruhu xadimahu bi fasdaay mu ne ko yàlla du dañ ba àddina tukki di leeral suuf si ci ay awliya yoo xam ne dañuy leeral sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne bidaa euh, bu doon luy ruur la du fa mën a am accès nee na nag yonent boobu moo ne ko waxal moo ne ko fasdaa ndax fas daa suñu borom subhaanahu wa taala moo ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ñi ngi jaamu suñu borom di làqatu nga xam ne mbir mi dañoo nekkoon di ko jaamu dañ doon làqatu bëru fenn fu ñuy wax daaru abil daaru euh, daaru arxam lañ wala daaru abu euh, ibnu abil la ñu nekkoon ba yàlla ne ko fasdah bi ma wa arid anil mushrikina ne léegi nag génnal ci biti nga woote li ngay woote tëbul ci na bu dara waaye lu jiitu loolu suñu borom def ne ko wallahu yaxsimuka min annaasi mooy yàlla garanti na la kon bismillah mën ngaa génn ci bitti fasdah bi ma tu'mar wa ahrid anil mushrikina bi nga xamee ne def na loolu nag Serigne Touba nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko rafaatal loolu ne ko fasdah bi ma tu'mar moo tax mu ne tabshirahu xadimahu bi fasdahi léegi nag mooy mu dellu si ci rab rabbi asxaabaka mu ne ko léegi ñu ànd ak yow ku ci nekk da ngay xool mbiram na nga ko mën a yewee ko mën a yewee ne la nga yare ko xam ne jàng ci la toll na jàng koo xam ne passé na jàng na ko defal ay tomb mooy tomb yooyu daan def di ci leeral diine nga xam ne képp koo xam ne sama xel passé na jàng incha allah foofu rek la lay mën a euh, euh, maanaa taxawee. léegi nag kon ma ñëw ci ñaari xasida yu ñaari xasida yu gàtt la muy xaaloo leer kan ak xaaloo safihun mooy bi ñu ko bëggee yóbbu ci Lat-Joor ngir mu ànd ak moom Lat-Joor di ko dimbali moom it mu koy defal ay ifta euh, bi ñu ko waxee loolu nag mu ne léegi loolu daf koy gàntal ndax moom lu dul yàlla amu ci ak defar amu ci ak yàq mbooloo mépp daal di yuuxu daal ne kii daa wéradi maanaam dafa am jàngoroy xel ndax loo xam ne liggéeyoo ko nguur gu toll nii nga xam ne jëndoo ci dara lépp ñu jox la ko te liggéeyoo ko nga gàntal ko kon da ngaa wéral ci ci la waxee ne nag xaaloo safihun li sorfi anhumoo basori uh, wa raxbati an dawil insuyaani fil basari mu ne ñoom kat nee nañu damaa wéradi ndax la ñu xool laa xoolut damaa am beneen gis-gis boo xam ne bu kawe la te sama bëgg-bëgg uh, mooy dem ci yàlla rek mooy sama bëgg-bëgg mu waxaa ne xaaloo safihun li amri anil kawni fii safin wa fii kadari mu ne nee nañu damaa dof ndax dañoo gis ne damaa jëfandikoo sama lépp wéeru wéeru ko ci sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne ah, mboolem lu nekk ci mbir ci àddina bi lu ñu moom moo koy doxal xaaloo safihun li xubbi xaaliqi maliki wa lam akun lil baraya ashtaki mu ne nee nañu damaa desee di ndax li nga damaa bëgg yàlla dëgmal ko subhanahu wa taala te musuma jàmba dara sama mbiri àddina ci kulul sunu borom subhanahu wa taala xaalo safiihu li kawni lam axaf ahada wa ma si siwa rahmani dil qadari nee nañu damaa wéra di ndax musumaa ragal ku dul sunu borom te musumaa yaakaar ku yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande yàlla mi nga xam ne mooy borom euh, dogal te loolu moom moo ko amoo ne fa haytuma taxaafu rabbuka al ahad euh, fa haytuma yaqaafu fa haytuma taxaafu rabbuka al ahad yaqafka min xawfika kullu ahad mu ne soo ragalee sa borom euh, lu sa borom daf lay ragal moo tax mu ne nee nañu damaa wéra di ndax damaa ragal ku du sunu borom te mosuma yaakaar ku du sunu borom subhanahu wa taala xaaloo safihun li xaf wi nax jamal ja ina li cheikh sidi fajlul xayri fi lxabari nee nañu damaa wéra di ndax dañoo gis ne damay xenc yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa xultu xallu sabili watraku adali maa li siwa taati rahmani min watari ma ne leen xajal leen xal sabil ak bu ñu ko waxee mooy bàyyi leen ma mooy xal sabil mooy mu ne bàyyi leen ma bu leen ma yedd bàyyi leen ma nii ndax man kat lu dul topp sunu borom subhanahu wa taala ama ci aajo mooy maa li siwa taati rahmani min watari maa li siwa allahi ida ma laxdu gayyabani waja uh, wa jaani almalakaani dahra min wazari mu ne awma lu dul sunu borom subhanahu wa taala boo xamee ne bàmmeel li ñuy wax al laxd laxd buñu bu ñu ko waxee mooy bàmmeel yi nga xam ne dañu gas pax gasaat meneen pax ci biir bu ndaw boobu moo tudd laxd nee na bu ma bu ma dugalee foofu kooku nga xam ne yaakaaruma lu dul moom nee na kooku dong laa dégmal ba tax mu ne awma yaakaar ci kenn ku dul kooku noonu ak boo xamee ne ñaari malaaka yi ñëw nañ muy munkar ak nakiir nee na awma kenn ko fa yaakaar ku dul suñu borom subhanahu si wal l asori mu ne waxtu nga xam ne azrail mooy malaaka mi nga xam ne mooy jël ruux yi waxtu bi nga xamee sama ruux nee na yaakaaruma feneen ndimbal ku dul xam ne moom moom euh, moom moom jamono mi nga xam yaakaaruma ku dul nga xam ne mooy ndimbalaate a nasir la jëfandikoo foofu maa lii gadan yowma ashri alxalqi kullihimu rabbun latifun siwa mawlaaya dil bashari mu ne bu ëllëgee boobu aw ma kenn ku ma yaakaar ci mboolem mbindeef yëpp bis bi nga xam ne moom la suñu borom di pang mbindeef yëpp mooy euh, boo suñu borom ne minha xalaqnaakum mooy suuf la ñu leen bind wa fiha wa minha wa fiha nuidukum ci ngeen di dellu wa minha nuxrijukum mooy yowmal ashru nee na bu yowmal xayaam ba ñëpp génn seen bàmmeel nee na yaakaaruma fa ku dul suñu moo tax mu ne maa lii a yow ma asir xalqi kullihimu rabbun latifun mu jëfandikoo baatub latif nga xam ne turu sunu borom la waaye day def li wax al lutfu moo tax mu ne bu yowmal xiyaama bi nga xam ne ñëpp génn seen bàmmeel yaakaaroon fu kudul latif moom mi nga xam ne moom moom bindee fi mu dellu waxaan ne maa li ida dur adnaani wa azmanani gawsun rahimun siwa mawlaaya ya zamari mu ne boo xamee ne euh, méttit wala addur mooy lor songoongal na ma mooy feebar boo xam ne da lay ñiisloo maanaam da ngay jeex nee na bu demee ba lor song ma ba mel ba def ma noonu nee na yaakaaruma kenn ku dul xawsun sunu borom mooy xeetalaate mooy yërmande moom rek moo tax mu daal wax la ci mujj nag mu ne in safahoo nii in safahoo nii an wirdin axad du bihi li cheikh siidiya cheikh cheikhil badi wal xadari mu ne bu ngeen ma nee damaa desee di ngir ne damaa jëfandikoo wérdu woo xam ne dama ko jëfandikoo ci cheikh siidiya muy wérdu Ah, loolu wax dëgg yàlla du ma wàññi dara moo tax mu ne in safahoo nii an wirdin in safahoo niya an wirdin axadtu bihi li cheikh siidiya cheikh al badi wal xadari fala akunu rusdan fala akunu rashidan misla rusdihimu wa sawfa yamtaazu yowman adama al sayri in alhamdulilahi in kaanat safahatuna idamatul wirdi wal idkaaru wal fikaru mu ne ñi ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne sunu deseet yi gi ñuy gi ñuy wax ne ñun dañ koo deseet yi mooy fu ñu toll di saxal wérdu loo xam ne dañu koy jël di ko jëfandikoo mu jëm ci yàlla ñu utal ko heure utal ko temps utal ko makaan nee na bu dee loolu donc ci la ñu desee nee na ñoom dañu ci sant yàlla baax a baax bu loolu jàllee ñu daal di ñëw ci xaaloolu yerkan xaaloolu yerkan nag mooy bi nga xam ne moom la njëkk a wax mu ne bi e, loolu amee dañu ne ko te ngaa te ngaa dem ci ñi boo soxlaa ñu dimbale la mu ne xaaloolu yerkan li abwaabi salaatini taxawus jawaisa tuxni kulla ma xiini mu ne nee nañu ma te ngaa dem ci buntu buuri àddina yi loo bëgg ci àddina ñu la koy defal ne ko soo ko defee kat di nga làq loo bëgg taxus jawaïsa kullama xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra al ilmi wa diini mu ne euh, saa borom doy na ma rek te doyloo naa ko lu dul euh, xam-xam ak diine gërëmuma ko mooy euh, yitewoo ko mu waxaa ne in kaana in kuntu za wajalin in kuntu za hasanin aw kuntu za wajalin daawatu dal ayni xabla raay wa chiini mu ne soo xamee ne dama am njàqare wala ma jaaxle wala ma am lu ma yitteel nee su sunu borom kese laa koy ñaan te mu juga muy wax ne euh, euh, in kaana yabxasu nii in kaana yabxasu nii xubbul euh, xutaami ila jiwaayi man duuruhu rawdu rawdu rawdu sayatini mu ne bu dee maanaam bëgg pañetam addina pañetam àddina mooy matt mu sew mi nga xam ne suñu ko tegee ci taal du fa taxaw danaan jëppe tàkk nga xam ne mën na see ko taal di taal ab taal sax nee na bu dee bëgg loolu kese moo tax euh, moo ma yóbbu ba ma dem ci kër buur yi seen kër yi nga xam ne mooy kër seytaane yi kon nag mbokk yi lii la doon nañ ko tënk rek ak donte xasu dëgg yemul foofu waaye nañu tënk sa gàttal ndax euh, wax dëgg yàlla li ñu tënkoon bari na lool waaye kon loolu la yàlla dogal incha allahu li duuf ci ñawi lépp xajul ci toogukaay gi kon incha allah dañuy taxalu fii rek di wax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin Euh, ma jàll wax ci ñaari ndénkaan rek yoo xam ne daanaka nit mënu koo paase mooy benn nga nekk ndaw wala nga nekk waxambaane moo tax mu ne euh, su su Sëriñ Tuubaa muy dénk ndaw ñi ak ñi nga xam ne dañoo toll ci ak waxambaane mu ne yaa ayyuha sibyaanu laa tashtaxilu anil huda wa bil ulumi ishtaxilu yéen ndaw ñi nee na bu ñëpp daw wut àddina ñëpp daw wut daraja ñëpp daw wut lu ñu am wala lu ñu def seen bopp nee na dawal wuti xam-xam ndax kat xam-xam boobu moo lay gindi jëmale ci sa borom mu mu ñëwaat ci tasawuru subaan mu ne yéen mag ñi yaa aywa subaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal fa qaddimu alxaqaida sunniya mujaradatin an firan wa mirya mu ne yéen waxambaane bu dee ragal ngeen gàcce ëllëg muy lu am am solo lu taxaw yéen waxambaane bu dee ragal ngeen gàcce ëllëg su waa bala ngeen a song menn mbir di ko def am ak na sa jiitu te xam googu tamit na ngeen ci jiital pas-pas yi nga xam ne mooy pas-pas xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te boobaa ngeen def ko rek te bañ di ci ngi nuyu ñëpp di wax yàlla jotaay bii yàlla bu mu nekk mujjug sunu jotaay yàlla bu kenn manqué yàlla nga fekk at yu baree baree baree bëri incha allah te euh, mbooleem lu fi waay ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala nangu ko kon bismillah jërëjëf sëriñ daam Euh, wax ji gàtt na waaye tënku na waaye am nay njariñ yu bari yu nekk ci biir kon gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di dalal sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Abbas moom maam Thierno moom lañuy bëgg a jox kàddu gi kon sëriñ Saliou ñu jox la kàddu gi nga dénk nu ñaanal nu nu doog a woo kuréelu Touba Sathily ñu yéeg bisimilah.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 asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mboolem taalibe bu fi nekk di ko tàmbale ci jëwriñ bi di ci lim rek ñi ci gën a miin ñu sëñ Seex Awa Balla ak sëñ Alaaji di sàkku ci ñoom ñu jotal ñu ko ci mbooloo bi ñëpp sëñ daam daf ma doon wax ma defal ko komanteer waaye xam naa sax mën na cee ñàkk arab yi dañuy wax ne falaw xablu mabkaha bakaytu shababatan bi socda shafaytu nafsa xabla tanaddumi walakin bakat xabli fa hayyaja li buka bukaha fa qultu lfadlu lil mutaqaddimi fi may tàmbalee fu gàtt rek mooy nettali leen xista boo xam ne <clears throat> dana leen dimbali ci teg gu ñu ci jataay bu ñu amal ngir jëmmi Serigne Touba ndax li ñuy tudde ay teggin Serigne Touba da koo jagleel téere boo xam ne loolu rek la cee jàngale te mag ñi nga xam ne lépp lu nit di am am nañ ko fa ci ay teggin rek lañ ko amee wolof day wax ne nopp ak am dañoo jege. am na ci bis sëñ bi dégg ay coow mu woo kenn ci mag ñi ne ko lan moo xew foofu mu ne ko bu ma ci amee ndigal de Mbàkke mën naa la ko wax mu ne ko bisimilah diglu leen waxi mu baax mu ne ko dafa am ndaw loo xam ne dafa xeeboon wërsëgam dem ci wow jàmbur doon ca wàll far borom wërsëg wa yam ca ñu doon rawante jéego ne ko ndaw ya nekkoon ca ëtt ba nag doon jàppale borom wërsëg wa ca rawante jéego ba mu mel ne ka jiitu woon dañoo yam ca moom ba di ko ayibal dangay xool tontu bu tegginu bii mën naa may nit du ne kon li may wax rekk lu gàtt lay doon muy Sëriñ Tuubaa dafa woote ngir ñu santale ko boromam te moo ci jiitu boo demee ci nooru daare ni gis naa fa way yu bari yu ma neex sakkartuka allahuma bil midaadi sakkartuka allahuma bi salaati sakkartuka allahuma bi sujoodi way yu bari nga xam ni daa mujj mu naan làkka sukóor ya anam bu ne sant ne ko yàlla am na sax fu muy woy ne ci xasiid ak sukuru assinu moo jamatun la doon wax ngir sant te loolu répp rek ci diggante bu gàtt rek doomu bi day am lu ko war muy sant yàlla ngir lum ñàkk lum tële te yàlla may ko ko xam ngeen ne kenn ci ñun ñi bi muy ñëw àdduna ci tële la fi ñëw te buy génn ci tële lay dellu te kenn ci ñun ñi ku ci ñëw rek mat sëkk loolu rek doy na sant yàlla waaye dangay jàppu ne seen naturel léegi laa ciy waxtaan sax ci mag moo xam ne ab américain la muy wax sant gi mu war a sant yàlla ci léppam ni mate nga xam ne dafa wax ba ne benn ci samay cër bu ci manqué woon rek bu ma demee hôpital coono bu ne danañ ma ko teg yàlla jox ma ko ci lu ma fayu dara kon lii moo waral sëriñ bi woote woon ngir ñu ko santle boroomam ci li ko yàlla defal loo xam ne nag defalu ko kenn am na sëñ Moussa Ka fu mu koy wax foo xam ne wax bu yéeme la daf ne ko karaamuy awliya yi mooy sa mbubu biitum néeg place yi ñuy màggal la say gone toog nee ko awliya yi kala seeni karaama mooy sa mbubu biitum néeg place yi ñuy màggal la say gone toog kon doy na sëkk rek ñu xam ne Serigne Touba du ku ñuy xam ku ñuy bëgg la te noonu la ko leer la woon Cheikh Ibrahima Faati nga xam ne ba mu koy bind daf ne ko xel max ayyuhal maxbuucu bi naa kon bisub tey bisub ngëneel la bisub mbégte la bisub tawfeex la bis boo xam ne kenn ku nekk danga war a def sa kem kàttan ngir am ci loo xam ne mësoo ko am ci beneen bis ndax yàlla dafa tànn lenn nekk dafa am lum ca gënal tilka rasulu fadalna baadahum ala baal wallahu fadala baadahum ala baal mu dem ba mu neex mu ne walal axirat akbaru darajaat tafdilan ëllëg lay raw noon noonu la tànn ci ay bis yi baa ngi liir benn histoire boo xam ne nit ku rayoon juróom ñeen fukki nit la ak juróom-ñeent bonoon lool ñëw ci benn boroom xam-xam ne ko man de rey naa téeméer bu manqué benn léegi nag dama bëggoon nga wax ma nu may def ba yàlla jéggal ma xam naa dafa taseeg borom xam-xam bu tàng diine rek mu ne ko yow moom yàlla du la jéggal yow moom c'est fini mu daat koy rey muy téeméer ba mu demee ci borom xam-xam keneen koo ko nekk ku tey ba mu ko leeralee mu ne ko dangay jug génn dëkk bi nga nekk comme lu bon rek a fa nekk jëm fu baax fa boo àggee nga jéem tuub ba muy dem mu faatu ci yoon wi ñu daan ne luñ koy àtte suñu borom dane malaaka natt leen diggante fu bon fi mu jugee ak fu baax fa jëm fu ci gën a jege ngeen xam ne foofu lañ koy àtte wax nañ sax fu bon faa gënoon jege waaye yàlla dafa def ci baatinam fu baax fa gën a jege mu daat koy jéggal kon noonu la yàlla tànne ci bis yépp noonu la yàlla tànne ci lépp kon bis bi noonu la ko suñu borom tànne jox ko sëñ Tuubaa muy bisum mbégte bisum cant bisum tawfeex li ma ciy dolli rek ci jeunes yi ndax mën naa ne sama génération lañ te lu bari ci lu ñuy dund xam naa ko mooy soxla nañu repère Serigne Touba doy nañu repère Serigne Touba bu ñu weesoo dimension spirituelle teg ko comme référence loo ko nat ci àdduna danga nga ciy mën a dem ba mu jeex moo xam identité culturelle la moo xam esprit euh, d'entreprise la lu mu manti doon côté socialisme foo natt Serigne Touba da koy mat sëkk zurriyatan tayyibatan tujaddidu kon àdduna bi fi muy doxee ni mu toll nii maa ngi doon liir ci benn philosophe daf ne ñetti kuréel ñoo fi am mooy ñenn ñoo xam ne dañoo am ay principe am luñ gëm ca loolu lañuy dox am ñenn ñoo xam ne gëmuñ dara e ceux qui se trouvent entre ces deux groupes c'est-à-dire ceux qui suivent le mouvement am na ñoo xam ne fu majorité ëpp rek lañ jëm bu ngeen seetloo bu baax fi mu ne nii àdduna bi dañuy rayante ci kenn ku nekk samaw langue moom lañ gën a wax ci àdduna bi foofu rek fi la identité culturelle di tàmbale Serigne Touba référence la héros national la boo xam ne Afrique ni ko kenn ci waa FMI doon waxe ne si les enseignements de l'Afrique se basaient sur les sur l'éducation telle que chez Ahmadou Bamba, on n'aurait rien à envier aux pays occidentaux. ñun ñooy xam lu mel noonu ñu valoriser ko ndaw ñi di coow boobu ba léegi ñu ci baree bari tey bu ñu leen di jàngal culture européenne lañ leen di jàngal histoire européenne lañ leen di jàngal jëfi tubaab yi lañ leen di jàngal nit ki pour mu mën a defendre boppam devant n'importe quel obstacle faw boo ñëwee indil ma dara dama koy analyser ci sama xel ndax laalakum na analyser ko ci sama xam-xam ndax laalakum taalamoona analyser ko nag ci réflexion ndax na kon bu fekkee amul lu nekk ci man lu ñëw rek dama koy encaisser kon faw ñu gëstu Serigne Touba ci gëstu bu wér def ko suñu lépp mu doy ñu lépp bu ñu am complexe ci lenn foofu laa jeexale samay kàddu di leen net nag xista boo xam ne ñu xam ne Serigne Touba amul moroom benn xista bu gàtt la ñu xam ne Serigne Touba yàlla sàkkul ku mel ne Serigne Touba ci kaw suuf dafa am benn waay boo xam ne doomam dafa nekkoon njaareem ku ñu wax sëñ Ibrahima ñaan waaye juróom mi tudd sëñ Abdou Kumba ñaan ba mu fa nekkee mu naqari ko lool dafa bind sëriñ Touba benn leetar ne ko sama doom dee ngi foofu waaye ëppoo ma xam-xam gënoo maa jege yàlla dàqoo maa julli amul lenn lu muy def foofu Serigne Touba ne doom ji kaay dellu fa sa baay jox ko ab leetar ba mu demee ba mu tijjee leetar ba sëñ mag bi daf ko ci doon woolu ba mu génnee leeral ko waa dëkk ba dañ ne ko man ngaa dem wuy ji ko am ñu ne ko sab nawle la bu la soxlaa ne la fekk si waaye ginnaaw ba ñeneen xelal ne ko demal tàggu say kilifa ba mu tàggu kilifaam ñu ne ko de mu ne ko mën ngaa dem nee na li ko gën a yéem mooy bis bi mu wàccee ci gaarum njaareem rek la fa fekk ñett nit ñu taxaw di ko xaar ana Abdou kumba ñaan fekk boobu digal nañ ko nee nañ ko boo demee bu fa lekk bu fa naan li ñuy tuddee cerey baraay la defar yóbbaale biñ ko andilee ak bagaan ngir mu xewlu dafa wàq daal di bàyyi noonu ngoon jot mu dem wuti am soowam def ci cereem daal di xewlu sëñ dafa nekk ku mat bi guddi jutee bi ko sëñ Tuubaa woowee dafa lal sijaada gi toog ci suuf góor gi bi muy ñëw ci sëñ bi dafa waajal boppam li mag ñi tuddee daray rabal ak mbalaanum tënd moom la teg ci boppam ñëw fekk sëñ bi toog ci suuf mu toog ci kaw jox ko ñaari loxo sëñ bi ne ko jot naa fi sa bataaxal mu ne ko lu ca nekk maa ko ca def sëñ bi ne ko nee nga ko man alxuraan nga de mu tàmbalee lim jàkka nangam jàkka nangam jàkka nangam sëñ bi ne ko aaya sàngam nu ngeen koy ta nu ngeen koy tafsiré mu tàmbalee wax sëñ bi ne ko buntu la ci sëñ Tuubaa da koo téye di ko leeral di ko leeral ba góor gi nee na man damaa leer naññ ne kii li may wax du lu ñuy jàng nee na man damaa jàpp ne kii mooy yónente ba ba ba nga xam ne ci alxuraan ci moom la wàccoon nee na sëñ Tuubaa noonu la topp man ba nga xam ne dama ne saa nii nag kii moom xam gi mu xam alxuraan moom day day sama borom lool dong nga tax mu man koo xamee nii bi sëñ di di di daaneel fekk na saan góor gi mi ngi wàcc yére bi mu daanu wàcc mbaxana mi daanaka ñaq na ba suuf la mujj toog ab ab da daan naafila ñaari rakka la daan def guddi gu jot ab kaamil keroog daa réer tëdd bi mu xëyee sëñ Tuubaa da ko woo da ne ko bala nga ne benn baat damaa bëgg nga nga ma jox la sama bopp kon sëriñ Tuubaa nit yor na lu ne dem toppi ko kenn ku nekk nag loo fa bëgg danga nga ko am sëñ Mbay Jaxate nee na murit dëgg yombul la mbay nga wax ne man ab murit la te doo ab murit gisal waaye ngi jug di wooteek murit ba dundam nga jee mu rek murit gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba am ay murit te kat du murit wasalaamaaleykum. macha allah. jërëjëf sëriñ bi euh, intervention bi guddul waaye am na solo sëriñ Tuubaa moom. la mu waxoon rek la doon ndax moom daa waxoon ne daqewuma ak kenn rawentewuma ak kenn ndax ba ma rawee ba ma rawee du léegi ba ma rawee du léegi ñu ne ko lu tax mu ne laxat sabaxtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin axshaau mawlaahu jiitu naa ñépp ca démb raw leen tey te daqewuma te ku ñëw fa nga may fekk te ko am maale set kon Sëriñ Tuubaa moo noonu kon bala noo jox sëriñ bi mu def ñaan sëriñ im ah, sëriñ Saane daa wax ne ku ñuy wax mut siise te mu dëkkoon ak ñoom yande beey ak ah, Adama Suur ñoom yàlla dafa dogal dafa yàgg ci réew mi lool ba fii nu toll nii daa wir ñu bëggoon koo sàkkul ndimbal pour mu dellu senegal ah, Saane di leen wax ne bu samdee danañ taal ñoom seeni oto dugg ci kër Moodu yi képp ku ñëw sa kër na nga xam ne looloo leen tax a jóg nee nañ li tàmbalee ci un euro ba saa euro xeebuñu ko lu leen waay jox ñu boole ko ngir mu mën a dellu eggaat ci ay bokkam mën a faju mën a nekkaat ci sagoom loolu nee na mu ngi leen ko yëgal yéen ñëpp kon gannaaw loolu sant gi ak ngërëm gi xanaa ñu sant sëriñ bi gërëm ko wane ne wane ne doxinu maam no wane na doxinu maam Thierno doxin wu wóor ndax bisu tey bii bi mu tàngee kenn du dem sëñ tubaa maam Thierno rek la yebaloon ndar maam Thierno bi mu demee bi mu dellu see bi mu bëggee nettali Serigne tubaa Serigne tubaa da koo xamal ne Thierno mu ne ko Mbakke mu ne ko dett mbeer ba nga taxawoon sànq leen ya dox sa kaw no xam naa ñaata lañ Thierno toogal fii xare ki daw dàqul ki dee dàqul jaloore borom da koy nettali Thierno toogal ma liggéey te dellu si ngeen añe kooku mooy maam Thierno Birahim mooy maamam. moo jur waajur wu góor kon su doxee nii warta jaaxal kenn kon kuréelu Touba Sathily mën ngeen a yëg sëriñ bi def ñaan ñoo indi xéewal yi su ko defee ñu àggal liggéey bi sëriñ bisimilah nga def ñaan nun ñëpp nu tàllal sëriñ bi def ñaan amin amin amin amin amin amin amin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin آمين آمين آمين barke Sëñ Tuubaa ربي يا أحمد على محمد علي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa